nen euh, ku nekkaat ci téléphone bi ñu jël ko ñu woon ak euh, alaaji seexu Guèye alaaji seexu euh, li tax dëkk bi yëngu fan yi mooy buur géwél fan yëpp ñu ngi koy waxtaane ci yeewu leen boo duggee Facebook boo duggee internet partout sénégalais yi nekk ci àddina mhm. li ñuy waxtaane mooy buur géwél buur nag ah <laughs> dafa bari technique dëgg mhm. ndax géwél piir la mhm. mën nañ leen cee mosal tuuti juste après on en parle waaw man ngay dugal boîte vocale kenn mënoo génn. génn dafa dof wala dafa naan kaan lu mu lay génne nii. loolu yaay ñëw génn ma ñëw fii ma sone mu ubbi leen mu moo benn xaritam après ñëw dangay feebaram boobu noonu moom moo ko daaneel feebaru melaasam boobu. wax rek man de après mu ñëw feebar xaritam bi yëkkati benn enveloppe jox ma pour ma dencal ko. enveloppe la. man enveloppe bi sax xaw ma mën lu ci nekk nekk ni enveloppe bi benn sec dix millions moom moo ci nekk moom nag mu yaakaar ne man damaa bëgg a dugal enveloppe bi ba bokk de wutal foo toog ay waaye nopp dalootu na sekk maalu xaasu bi ramalaa bëppal ba yéen su boobu ndar tegee yéen a koy ubbi nii laa génte li nga wax nii tekki gis nga yow yaay dajj nit moom mën nga ko yow yaay mën ngaa ne ci àdduna bi di concours gën a neex yaak suukar ak xorom. <laughs> waaw lu ko jar a ko jar. xanaa fukki million yi la. mun naa ne ah <laughs> yaay daal. waaye buur. waaw. ana dix yi. c'est un nouveau départ pour Bour Guéwel un nouveau Bour Guéwel Bour Guéwel ak yeneeni science am ak yeneeni xalaatam duma ci def lu ñaaw duma ci wax lu ñaaw fekkewuma fuñ koy waxe fekkewuñ ma fuñ koy jëfe Sénégal gu jëm kanam rekk man dama bëgg a dem ah man buur géwél may soppi doxalin di wax ci yeneen di dox ci yeneen dem bi ma bëgg a dem ku ci jàpp ñëwal ñu dem ku ci jàppul toogal sama moroom yaa ngi fi di def lu baax ak di dogal ci réew mi te juddu naa fu ma war a juddoo loolu war naa ko mën a am man buur Sénégal 2 point wax ki yey buur 3 point voilà. gis nga de <laughs> bu géwél sa nawle baa ngi lay nuyoo maa ngi lay fay. <laughs> buur na nga def. maa ngi fi. naka suba si. Euh, ñi ngi sant sunu borom. <laughs> bu baax a baax. bu wér. waa kii di cekas cekasi moom kan la. maa la. yow la kan. on joue. <laughs> mais mais mais mais mais mais mais mais buur géwél. Euh, man daal man daal mën daal dama waaru parce que euh, dëgg jóge fee ñëw fële. Mm-hmm. waaw nga ne woon toj réew mi ba léegi dañoo dem ba Sénégal yëpp. Mm-hmm. ils font du ñi ko avoué ñu ko avoué woon. tout le Sénégal. tout le Sénégal nag la reconversion surtout jigéen bu bëlee ñëpp ñëpp andi dal bi li ñu naan ku ci bëgg ku ci bu neex sax dangay da ngay indi saa neex ah et nga nga nga ñëw ci buur géwél actuellement muy def tabac boo xam ni euh, euh, bettu la dëgg la waaye ñun dañu euh, dañu waaru ci personnage bi waaw Pape Cheikh maa ngi leen maa ngi leen di nuyu yéen équipe bu yeewu leen mhm. parce que man émission bi di nuyu waa Sénégal mhm. émission bi man bokk naa ci ñi ko njëkk a def. Mhm. yeewu leen mhm. mais tey li ngay wax damay dem ci ci base li nga wax rek. Mhm. dama gis ni tey bi ma ñëwee fii ci plateau bi. dama dama dama gën a kontaan. lu tax ma gën a kontaan mooy gis nga fajar ni mu mettee ak nit ñi ngeen mobiliser yëpp. pour ñu liggéey ci yeewu leen. dégg naa keroog nga koy wax ci yeewu leen. boo demee ci plateau Europe yi. seen matinal yi. monde bu toll nii la ñuy mobiliser. pour assurer. matinal parce que matinal moo gën a metti ci lu nit di def ci télé. kanam yi ci lay moxoñoo. Mhm. xol yi ci la dul yeewu. waaw mbagg yi. et dëkk boo dem franchement ça neex li nga wax dama ci taxaw seetlu mm-hmm. dëkk boo dem ak matinalu boppam télé français dañuy def matinal pour les français. Angleterre waa Angleterre. très mm-hmm. euh, def matinal pour Afrique du Sud. alors ñun ba ñuy nekk xale ba tey di gis ay émissions matinales. Mm-hmm. ay émissions yu ñu nelawloo fajar. bëggatuñu loolu. waaw ku ñi ñi woote ci ñiy woote ci seetu bi dañ naan ba ñu lu leen dàqal ci lu ci yeewu la ñu ni tama yi ak taas yi Pape Cheikh di def. dëgg parce que nit yeewu suba rek. nga ni ko nga ni ko tamaraaj non mu mën a naaw ñaq tekkeeku félicitation merci ci li nga ma laaj transition la dafa ah. metti ci ah, dafa metti ci carrière ci oto sax dafa metti mhm. ci oto <laughs> no c'est c'est vrai parce que oto day am loolu. Eh. Mm. day am day am day am lu tudd euh, transition dafa am loolu. Uh-huh. oto da ci am pièce bu tudd loolu. Mm-hmm. nit boo jógee ci base boo xam ne man pendant sept ans ou huit ans. Uh-huh. maa ngi nekkoon ci benn benn benn benn benn. gaam waaw benn mbir mm-hmm. téye ko foofu. Mm-hmm. ma nekk koo xam ni macha allah yàlla daf ko may muy lëz. bi ñuy defee buur géwël bi parce que buur géwël trois ans ñi nii ñu di ko wax may daw buur géwal rek di ko daw di ko daw di ba ñu ok naa essayé bi ma essayé leuse ma def comme ça neex ni ma non Sénégal yëpp doyal nañu ci Sanex. parce que ñëpp a ngi Sanex bëri ay mm-hmm. góor ñaa ngi Sanex. découragé wu ma loolu découragé wu ma wu ma loolu. Mm-hmm. mu woo ma mu ne ma Cheikhou est-ce que gisoo ni da nga xew yi. <laughs> artiste bëggul xeewee ah. nga stressé. man ko ah bon mu ne ma sii boo ko defaatee nit ñi dinañ ko seetaan parce que du ñu am lu ñu seetaan mais daf fay sës rek mais du dox. te maak yow ñoo nekk dañoo war a def mu dox. Ah, ah, ah, ma ne kon pour yow nan lay doxe mu ne ma essayel ay voix. Leuz moo ma jox voix bi. Hmm, mais voix bi kan la. waaw ñu bëri tase naag am na benn femme bu ci xuloo man ni ma sëñ Moustapha si ngay toppandoo. mais non man ko astafurlah. kooku uh-huh. sama sëriñ la. am na ñu ne Thierno Ndiaye am na ñu ne Paa mm-hmm. amoon naa nijaay. Mm-hmm. bu ndëkk suñu kër bokk ak sama yaay ndey ak nii lay waxee. am na sax ñu ma ni Ali Gueye Clé bu Thiès ngay toppandoo. waaw yooyu. am na ah. ñu ne Pape Ali Gueye. Ah. nijaay ñoom Sida Thioune ak Fël Thioune laay toppandoo. parce que xam nga moom it. noonu lay waaw waaw noonu. Ah, mais ki may toppandoo moom. Euh, toppandoo ma kenn sax mais sama sama sama sama yëfi bopp la. nañ bàyyi ba ci kanam. parce que personnage bi. mooy waxee noonu. Mhm. personnage bi di buur géwél moo mel noonu. xam nga lu tax. Mhm. buur géwél. Mhm. kenn du ci dégg lu ñaaw. kenn du ci gis lu ñaaw. fépp fu Sénégal féewaloo. yu géwal dina ko dajalawaat. loolu moom mën naa ko assurer waa Sénégal incha allah. ba Casamance. la fa nit ñi di ragal. buur géwél dana fa dem boole leen te ci la ñuy ci la ñuy ci ngéwél euh, da nga indi li tax ñu naan géwél. ci biir buur géwél xam nga fi dañuy foog ni géwél day ñaan géwél ah, xam nga euh, li nga defal euh, sa géer boobu am bor nga génne xaalis ba ñëw ba ca kanamam sagal ko mm-hmm. géwél noonu la mel gis nga Sénégal gu njëkk ga buur géwél dina ko delloo si waat ñu xam suñuy valeur mm-hmm. xam ni amuñu xeet gu ñu gën a baax ñun mhm. xeet gu ñu ëpp teraanga mhm. xeet gu ñu gën a gën a gën a gën a gën a gën a correct mhm. parce que loolu dafay commencer di denc ci te dañ ko war a indiwaat xool nit waxal ko lu bon xool nit dëkkal ko fu bon wax lu la wóorul def yu bon yooyu du ñun. te buur géwël yooyu la bëgg a. kon daal yow léegi waaraatee la tax a jóg quoi. waaw non yooyu ñoo du waaraate mais. Mhm. valeur yooyu dafa war a dellu si pour réew mi dox. <laughs> ñu loolu la ñu mais mais mais est ce que yaa ngi yaa ngi jàng maam yi ci ngéwél yaa ngi yaa ngi tagg sa génn. épisode bii di ñëw. ah. ci la Sénégal yëpp di bàyyee buur géwël. yaa ngi jàng maam. <laughs> parce que géwél yi sax eh. buñ dee woo yaa dañuy bind maam yaa jàng ko am na ñu ñu ci yor ay li ñuy enregistré nu dictaphone xaw ma ah. enregistré maam enregistré maam enregistré di ko jàng di ko jàng ba mokkal ko yow yaa ngi jàng maam yi comme géwél yi comme ñun quoi parce que ñun dañuy man damay jàng maam ci secret man damay jàng maam man ma wax la dootul secret waaw il faut que ma jege la yow waaw man damay jàng maam ñun ci sunu parce que plan de travail bi ñu ma jox am na ñuñ ma wax il faut ma seeti leen. Mm-hmm. yow bokk nga ci. yow il faut ma seeti la ma seet si la. Mm-hmm. jour boo liggéeyul. Mm-hmm. toog ak yow benn deux heures de temps nga may ma ko ma ñibbi ak beneen jour il faut ma seet la ñetti yoon. ñetti fan. waaw il faut. fu ma la koy jàngalee ci yeewu leen. wala ci déedéet déedéet ci pet la rek foo nekk rek man disponible naa pour fekk la fa. Mm-hmm. Mm-hmm. pour li may wax ma jël ko jàng lool. Ah. parce que fi mu toll nii damaa dama dama damaa doon leneen ma waaw il faut nga jàng ay maam nag dafa ànd ak dafa ànd ak ay maam te comme que buñ ci jógee. Uh-huh. ci kër gii ñu nekk. Uh-huh. foo foo foo fi nekkee di avancer. Uh-huh. dañuy dem ci cinéma dem ci yeneen ak yeneen c'est prévu. waaw c'est prévu. affaire bi il faut mu dafay dem parce que day jóge buur géwél dem ci yeneen dem yeneen dem yeneen. ok d'accord. mu ngoog de buur géwél nga xamante ni moo moo moo moo xew. buur géwél. waaw. Modou Mbaye. man ni muy woowee Modou Mbaye may rey. ah Modou nelaw na de. lii laa def napp na la de. bu baax waaw Modou Mbaye war ngaa ñëw si plateau bi di napp nit ñi. non nappewul de nii la mel. ah naturel la. ah nii la mel. <laughs> boo simee bopp bi mais mi. Eh. waa ana fee. non buur géwél bi ma yóoxu dama doon xaar mu tiit. Hmm, kan. buur géwél daa yóbbu fitam. Hmm. <laughs> mais Modou Mbaye ana junat yi. leneen leneen bu ma ah. mais il faut doo ko génne. non non. <laughs> lu tax. <laughs> mais Modou Mbaye. Modou Mbaye laa xamul fu ngeen ko jëlee. <laughs> non Modou Mbaye nag moom lëz a ko indi. xam nga lëz moom mooy xam nga lëz nit la koo xam ne. day dox ci mbedd mi di casting parce que ñi ko xam bëriwuñu. Eh, mhm. kenn xamu ko sax. day gis benn nit rek jël numéro. waaye yaa ngi bëgg a découpé. waaw les ni muy waxee lay filme 9h la ñuy commencé comme nii bu ñu fi jógee dañuy tourné ji. 9h ba 2h du matin pour ñu am. benn épisode yu 10 minutes. cinq décembre Paris dafay sedd guy may def plateau. Mm. plateau bi de bonjour bienvenue dans Dakar ne dort pas la. Mm. mu sedd lool. Mm-hmm. ma ay gants. Mm. xam nga les dafa dër. ndeke li ni muy waxee noonu lay filme day jékki-jékki naan ma nii <laughs> ma taxaw ci seddaay bi as bonsoir xaw ma la ñuy tubaab. booy boobu ñu defaat beneen ñu ñu defaat boobu. perfectionniste la sama dër la waaye. <laughs> non non est-ce que gis nga par rapport ak yeneen ah, image ah non amul morom amul morom en actuellement mooy euh, série bi nga xamante ni li xale yi naan mooy bomb euh, mu ngi def. Euh, feu et Flamme fii ci Sénégal ñëpp bëgg ko di ko seetaan ñun chaque jour ñu waxtaane ko ah muy Bour Gueweul chaque jour ci Yeewu Leen bi on parle que de ça. Mm-hmm. parce qu'on se rend que dañu dem ba théâtre bi sax dafa jaaxal nit ñi ah, série bi dafa jaaxal. jaaxal nit yi te Modou Mbaye itam mu ci def rôle bu rôle bu neex ñëpp fu single bi toll. waaw single bi ñu ngi koy préparé. yéen a ngi koy préparé ah? ak Babis Konaté. maa ngi da nga war a génn single quoi loolu waaw dafa war a génn quoi. Ah. kon nga war a denc toog job ko bu baax. mais mais depuis kañ kañ nga commencé def. Euh, single maa ngi euh, bi. théâtre bi théâtre bi waaw kañ nga commencé def. Oh, moom bi yàgg nañ si trop ah. yàgg nañ yàgg nañ koo def. mais. dañoo dem ba ci biir. Ah. bàyyi métier bi commencé di def cadre di caméra di filmer quoi. ok mais actuellement yaa ngi studio di di di pare single bi quoi. bàyyi nañ fi bàyyi nañ film bi di def théâtre dem ba commencé génn single pour way ok <laughs> ñu xool ko euh, bi mu demee ci Papis Konaté moom Modou Mbaye gis nga de. yow Modou Mbaye. Ah, yow Modou Mbaye. Ah. Modou Modou Mbaye. Ah, ah, Modou Mbaye. Adja Ndiol Feccal Modou Mbaye. Ah, Modou Mbaye. ñu eh, doosee Modou Mbaye. ñu doosee Modou Mbaye. ok ok euh, merci léegi ah. comme comme il faut ngeen def lu am rythme dama leen di tegal benn benn rythme ngeen taasu si kawam d'accord. ok aywa. ay ci dem leen aywa. bubrang bubrang bubrang malla murɓe mbawi parangrang lan ma ban toog ma ban toog toog toog ma ban di rekk ma ñanki tan di déglu sama radio kan kan ma yàqal ma yàqal wala murɓe mbawi ma yàqal yàqal waay Modou Mbaye a ah, def leen dara ci studio bi yow Modou Mbaye ah yow Modou Mbaye <laughs> est-ce que dangay ngay dévoiler single bi ban bis lay génn wala doo ñu wax dara <laughs> il faut gars yi kot ko ci euh, ci buur géwél bi suba voilà ak bi <laughs> si bëgg nañ def loolu yëpp. <laughs> mais foo xaalisu xaalisu buur géwél. waaw. oui grand bi daf ma waroon bàyyi quoi. oui nga réaliser sa projet. sama xol bi jeex. bi la bi la grand bi woowee. jot baat vocal di waxtaan di la wax. waaw ah, non ñaan li mu ko ñaanal Modou Mbaye. <laughs> Modou yàlla nga Ebola. Oudou Mbaye yàlla na nga Ebola. li mu ñaan réew li mu ñaan réew yàlla nga Ebola dama ni ko. dama dama bi mu jugee ci kër géeg léegi ñaata minutes ñu ne ma yàgg na trop. ma xalaat ni fii ku fi cof dara rek Gàmbi ngay daw. ma ne ko boo demee Gàmbi. yaa jàng mee nga fa day dàq sàcc ni Guinée boo fa duggee Ebola jaa nga fa dina xaar mais waxuñu ko. mais xam nga lu neex biñ la teralee rek nga xëm. non kenn mësul gis loolu. waaw mu <laughs> ne mais loolu am na de. loolu am na ah, ah, ah? man sama premier <laughs> sama premier dugg si Dakar. en 2005 bi ma dugg see dakaar ki ma fi njëkk a may 4 millions mhm. euh, xaalis boobu defe naa Daouda Mbow laa ko dénk. ndeysaan Daouda Mbow mu baax mi suñu xarit boobu. waaw waaw. 4 teg ko ci saal bi. bi mu lemee chèque bi nii jox ma ko. Mm-hmm. parce que dafa lem chèque bi jox ma ko joxaat ma un million ni ma jënd ci essence. Euh. ah way bon <laughs> booba booba booba booba commencé naa di ñam sax ay un million. di mhm. dugal ay un million sama poche ak yooyu. Mhm. mais bi may dugg ci oto bi sama bon bi ma nee nii muy 4 millions après sama petit ni gisoo 4 quoi. <laughs> est-ce que du 400 mille wala. ma ne moom kan di la jox chèque bu 400 mille. demal sama bopp. ma déglu oyel mu ngi nii yëf mbir maa ngi mbir maa ngi xoola xoola mu ngi xoola mu ngi xoola nañu mos lii rek xoola li yëf yaa ngi. jël loo ci mën def loo ci mën a dimbali soxna yi tamit nga dimbali ko ci def ko yaa moom réew loolu buur buur rek la boo jógee nag nga daal di ko jël loo ci mën def loo ëpp loo ci mën a soxna yi tamit nga dimbali ko ci def ko yaa ko moom réew loolu buur buur moo buur xam nañu eh buur Sophie eh, on ma on ma gardien ma gardien on ma gardien bi ma gardien bi Moodu kaay gaaw lan la def jàpp lu mu xew dafa am malaise rek xam nga dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu. yëkkati leen toog ah yëkkati leen. buur. yëkkati yëkkati. buur. buur. buur. attends doucement doucement. buur buur. passe-moi l'éventail s'il te plaît. buur. passe-moi l'éventail bi mbéy dimbale ma ak sa français yi nga naa ma paas xaw ma paas dimbale ma waa yow. buur. buur. kumis lan la buur. buur. buur. tëjal sa téléphone de bu ko mës a ubbi yow waaw tëjal sa téléphone du waaye du tëjal yeeg boîte vocale ngi fi ma la ko ci bàyyil rekk yàlla gis nga fi ngay dem yépp xam naa ko yow yow du daw nga di jéem dugg gàm bi Yaya Jammeh nga fay fekk moom demal da dof ba dugg gàm bi Yaya Jammeh du fat sàcc de te gina boo fa duggee Modou Mbaye Ebola jaa nga fa di la xaar yow demal demal Modou Mbaye Modou Mbaye yàlla nga accidenté Modou Mbaye Modou loo yóotu yàlla boo ci jot te xoolal Modou Mbaye yaay criminel yow merci beaucoup nag lebal naa la ker nag nga fay ma naaj waaye jërëjëf naaj wa la lakk de Modou Mbaye Modou Mbaye fii nga xam ñibbisil li nga yor diis na ci say loxo Modou Mbaye d'accord <laughs> lundi ak mercredi 20h45 buur géwél tey buur la invité mu ànd ak euh, dëgg-dëgg Modou Mbaye Modou Mbaye sa jarbaat la wala sa wala sa rakk la. Modou Mbaye sama jarbaat la sa jarbaat la ah. ok euh, moom jarbaat bi def ay ay ay erreur rek yow porté woo ko plainte <laughs> yóbbu ko police toroxaloo ko. Euh, non non non il fallait ma wër ko nag ba gis ko. Mm-hmm. waaw il fallait ma wër ko ba gis ko parce que 10 millions yi moom 10 millions yi sama nouveau départ la. xam nga dañ ni Sénégal deux point. zéro euh, deux point zéro. mais ma ni buur géwël trois point zéro. Hmm. te buur géwël trois point zéro yi. Mhm. dañ koy wane. kese ci dix millions yi il faut ma liggéey ci. lu lu taxawal lu Sénégal yëpp xam ni. Uh-huh. liggéey rek a am njëriñ. jeex na alors buur da ngay toog ak ñun ah, ak ak euh, Modou Mbaye